wóor na yàlla bu ñu ko jàppee du doy billaahi lii du combat sax Balla Gaye du soxla. Ndeysaan bu ngeen gisee lii xam ne yaram daw na Ndeysaan Ndeysaan Ndeysaan wóor jàmbaar Ndeysaan mi ngi préparé mi ngi génn Ndeysaan yaraax gépp génn nañ soutenir ko yaraax gé gépp taxaw nañ Ndeysaan bu ngeen xoolee yaram xam ne yaram daw na yàlla na ko yàlla may ndam Ndeysaan Ndeysaan sa dëgg dëgg dëgg dëgg Ndeysaan yaraax mobilisé nañ. ndeysaan Weuz Diambar a ngi préparé ndeysaan Weuz Diambar a ngi waaj a génn su ngeen gisee lii xam ne ndeysaan yaram yaram ndaw na ndeysaan géwél mbaa ngi noonu fii la waree ndeysaan géwél mbaa ngi noonu jàmbaar xalab yaraax bi mooy waajal ndeysaan kooku mooy wëes jàmbaar xalab yaraax bi mooy waajal ndeysaan bu ñu xam ne yaram daw na ndeysaan sa dëgg dëgg dëgg kooy xalab yaraax bi ki la yaraax yaraax gépp génn nañ ndeysaan géwél mbaa mbaa yaa ngi noonu ndeysaan daa mel may seen saa Tuuba la ndeysaan daa mel ni may seen saa Tuuba ki may seen saa Touba la boo bi yaraax bi yaraax la waree yaraax gépp mobilisé nañ ndeysaan ndey ndes xale bi yaraax baa ngi noonu fii la waree fii la dëkk daal yi kooku mooy wës jàmbaar yaraax gépp mobilisé nañ soo xoolee lii xam ne saan yaram ndaw na soo xoolee ndeysaan xam na yaram daw na koo koy xale bi yaraax bi yaraax la waree ndaysan sa deug deug deug deug daa mel ki may seen saatu bala ndeysaan la waré yaram dawna bo xolé li xamni ndaysan ndaysan ndaysan ndaysan yaram dawna ndaysan yaram dawna ah ndaysan ki moy fal yarax ndaysan bokku ci isi war jàmbaar di doxalu am solo ci yarax fal yarax ak Fall tey loo yëg. waaw li ma yëg mooy contentement rek xam ne ñu ngi waaj bés bi wax dëgg yàlla préparé nañ ko def nañ ko li ñu war a di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam. parce que tamit xam nga lii dafa lii dafa neex bu ñu toll nii tey leçon bu mu jàngale rek dafa war a dem tere ji ko quoi te wax dëgg yàlla lépp lu mu ñu def daal def nañ ko yàlla mi nga xamante ni am ndam nag ñu ngi koy ñaan mu may ñu ndam incha allah. amiin waay waaw vraiment waaw noo gisee taxawaay yaraax jeunesse bi xam ne xale yi génn nañ mag ñi génn nañ ndaw ñi génn ñëpp génn nañ lii yaram ndaw na yarax mom vraiment euh, li len ci yag dañ ko yàgg même bu dul làmb sax xew-xew bu meunta am ñëppay genn wax deug yalla ñi ngi di sante nak yeen ñëpp di len gërëm di len sante parce que tam li yombul ku nekk bàyyi sa soxla ñew taxaw ci naaj bi xam nga ndax euh, suñu suñu suñu bëgg suñu ndam kon vraiment ñun tam ñi ngi len di sante bu baax di len gërëm di ñaan yalla boy bi nak yalla may ko ndam lu seddu guuy waaw tay mom vraiment ndam rek mo ñu jikko ta yalla ñu ko yalla defal amin way amin koku moy may fal ndaysan fal yarax ak a don ancien leader ndessane am fi ay ndam yu bëri bëri sigil yarax dafa di defal yarax lu am solo koku moy mbay fal fal yarax fal ñu ngi lay sant di la gërëm di rafetlu di rafetlu sa teewaay gis nañ la ñu ngi lay gis di ñaanal wol jamar yalla ko may yalla may ndam li moy yarax li moy jeunes yarax yarax nga ni nii ah ndeysaan sa deug deug deug deug deug ndeysaan yaram dawna na barke Sëriñ Bamba yaram dawna yaram dawna na yarax nga ni ngi moy Sa Touba ndeysaan kooku mooy Sa Touba ndeysaan Wëz Jàmbaar a ngi noonu ndeysaan mbër maa ngi noonu ndeysaan mi ngi nekk ci dernier réglage yi dernière préparation pour génn kër gi ndeysaan fii la waree ndeysaan yaraax la waree ndeysaan xalab yaraax baa ngi noonu kooku may xalab yaraax ñu gën koo xam ci Wëz Jàmbaar ndeysaan Wëz Jàmbaar a ngi noonu ndeysaan ah a ngi noonu den ak doom ndeyam ndeysaan xalab yaraax baa ngi noonu xalab yaraax Bébé Weuz jàmbaar ndeysaan xelab yaraax bi yaraax la ware yaraax la ware fii la ngembo ndeysaan Weuz jàmbaar a ngi nekk nekk nekk école Njaay di doxal am solo ndeysaan ci école bi te yàlla def diggantam ak ndigal di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may ndam ci combat bi ndeysaan mi ngi noonu joxe sarax yi ndeysaan kooku mooy Weuz Diambar ndeysaan ah dëppoo na leket ga ndeysaan Weuz a ngi noonu xale bi yaraax baa yaraax la ware ndeysaan kooku mooy xale bi yaraax bi Weuz Diambar a ngi noonu bu ngeen gisee lii xam ne yaram ndaw na ndeysaan yaram daw na yaram daw na yaram ndaw na ndeysaan yaram daw na yaram daw na yeneen fàtte yéen a ngi seen site Capa TV seen bu mag bi ñu ngi ci Capa TV ah ndeysaan ndeysaan Weuz Diambar a ngi noonu ñu dem stade wala ñëw dugg ñu ñëw ndam la incha allah mooy loolu ndeysaan Weuz Diambar a ngi noonu ndeysaan woo jàmbaar ak noonu yëg na ci bi ndeysaan mi ngi doon di waaj a départ ndeysaan mi ngi doon di waaj a départ ndeysaan mi a may ndam ndeysaan mi ngi doon di waaj a dem ndeysaan ma ngay départ satal ndam rek xanaa gisoo ma ndam

Pues, San loolu